intellectuel tu as fait lycée Lamine su fekkee tey mais peu importe damaa dox waaw yow da ngaa da nga koo jàng ci këyit yi man j'ai marché dama dox waaw d'accord waaw d'accord ndax sama xam-xam moo gën a wér sa bos d'accord léegi su fekkee da nga war a boot ki nga xamante ni yorul béjjëna juma tey comme il comme comme lu mu wax mhm. dëgg la pour man da ngaa war a jàpp boot ñëpp mooy sa mët bu fekkee wayjur bu fekkee wayjur dafa mët dafa war a mën a bootee ñëpp parce que su fekkee da dox parce que su fekkee danga dox te nga xamante ne jóge na ci àll ba yaram des na matul yow yaa war a mottali du ñëpp yow yaa war a mottali mën a mottali papa du ñëpp nanu mën a mottali dama ne way jur damaa jàpp ne way jur moo war a mat way jur moo war a mat ba déedéet ba mu la juree la mat mais du ñëpp nanu mën a boot am na boroom bi jëmi ju jumbax waaw papa dama ne tey am na ko nga xamante ni boo ko mënul boot tey nooy def ak moom dama ne man lu ma ñii di dugg boot ki ngay wax tey waajur bi nga xamante ni mënul boot kooku nu muy def ak moom léegi lan mooy lan mooy lan mooy moom lan mooy taxawaayam ci kooku taxawaay mooy muñal mooy génnal kër gi waxuma la génnal kër gi mooy lan bul ma sosal mooy muñal waaw muñal ndax kii ngay boot ëllëg kii ngay boot soo muñee nee naa la di nga mës a jur xejjum kër gi waaye nag la amoon démb ak li am tey bokkut te du benn maa ngi leen koy sant mais munu leen ko. yaa ngi indiwaat beneen munu leen ko. eh non non non man mënoo ma kii ñii xam na ne maa la ëpp xam-xam. d'accord ayca yow ñii xam na ne maa la ëpp xam-xam. wala bàyyi ma ñëw la ayca Vito vas-y. yow damay ah, sama morom xale yi gën a ndaw a leen man. koy ganale yow wala Ibou vas-y <laughs> vas-y su ma su ma mënoon def ni père père damay taxaw fii mhm. ci digg bi c'est parce que tu es un complexe. jàkkaarloo kii bi. billahi tu es un complexe li ngay wax su nekkoon dëgg fii ngay taxaw wax ko. waa ji dafa ne take off the defense star. man dégguma loolu because coronavirus is here ma xaw ma loolu. boo jógee nii rek boo jogee nii rek père. un de distance yi day kii nii dag may kii damaa mënoon dafa am dafa am ku woote sànq mu ne man mën naa fajal sama bopp <laughs> ak maa mën a fajal sama bopp man waa <laughs> nent laa vu que damaa wax dafa ah, dafa am ku woote sànq mu ne Vito li mu wax. Vito dafay favoriser <laughs> jabar ci kaw kaw yaay wala affaire yooyu te sànq dañuy wax ne euh, sa goro da nga ko war a jàppee ni sa yaay wala affaire mhm. yooyu noonu. raamu ko tarbiyu ko. dama ne. ragal ko. nit bu mat laa wax nit bu mat. Mhm. ku la mat yaay danga koy jàppee yaay doo xaar ba am goro di jàppe sa goro yaay wala sa sa sa sa papaay jëkkër nga koy jàppe bàyyi. boo matee ku la mat yaay da nga koy jàppee yaay ku la mat baay nga jàppee ko baay ku la mat nijaay nga jàppee ko nijaay la nga bàyyi seen seen kër nga fekk si ko si sa kër jëkkër ji ngay sëy si la waa ji nag dafa ne am waaw waa ji dafa ne am goro neex na lool waaye la tax nga am goro ko dàq mm. am goro mm. neex na lool waaye jëkkër ji la fekk ñu yar la fa ñu la war a yaree mu def ci yow ñeent ak transe takk la mu def la may bu njëkk financé indi la ci biir kër gi moo dàq fukki junni yoon goro dañuy wax nag démb man père buy wax démb man per damay des fois damay jaakaar moom ban démb la nekk ban démb la nekk exactement parce que moom dafa ñoo bëgg a lëre wala wala wala qu'est-ce qui se passe réellement parce que moom li muy wax démb du loolu moo nekkoon suñu démb man su ma delloo man sunu démb. waaw fekkeewu ma démb mais xam nanu. loo ci mën a nekk dañ ne ku sa dañu ne dégg Safia. Mm. dañ ne ku sa démb ku sa démb réer. Mm-hmm. sa tay du neex. wala sa tay du baax te nopp sax mag na boroomam. te démb ga te dé démb ga ñun dañuy gëstu lu bëri xam na ñu bëri démb na mu demee woon. Mm-hmm. même bu nekkee ñoom père ñi ñoo ñu mag fukki junni yoon. Mm-hmm. pour ñëw ci démb googu noonu dañ ne tey. boo jëlee appartement dem ak sa jabar dëkk appartement ñu ne maara day taale mel ni loolu crime la pourtant loolu démb la xewoon xewul tey de démb la xewoon da ngay nekk ci biir kër paa bi yor kër mais ñamu yor doom yu góor yamu yor paa bi da leen di jàpp jàpp autosuffisance da ngay bu njëkk ba sax la gënoon a yow parce que sa doom bu demoon ba toll ci soxna da koy takkal soxna ber ko mu dem ci këram des fois kër yooyu sax dana dem ba mujj doon dëkk ñu commencé di faa leen la indi loolu mooy ka makka wala seen maam moo daan ber xale yu góor yi mais léegi boo ko defee am sa jabar beru dugg sa apartement ñu ne def nga kirim dangaa ngaa bàyyi sa yaay dangaa ngaa bàyyi la mais nañu wax nañu nañu wax dëgg quoi. dëgg laa lay wax yow kii nga may nettali. déedéet ba ngay jóg kii nga may nettali kii nga may nettali ba ngay jóg yow da ngaa mer dem waaye kii ngay nettali yow. Mhm. ñooñu ñi sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim daan def su la jàppee tarbiya la defar la jàngar la ber la. nga sanc ab dëkk kooko jël keneen jàpp ko jàngal ko tarbi da may déglu da nga may da nga may déglu kooko jël keneen jàngal ko tarbiye ko santal ko ab dëkk mu kon ne dem loolooy liggéey sëñ tubaa ba sunu jonni tey mhm. ba pàkkub làmbaay tey noonu la demee ba nuy jógee ndakaaru mhm. ba nuy jógee ca làmbaay diggante mbuubaa njaay ak mbal mi sëy mhm. di ñëw fekk sëñ Tuubaa toj ko ñu ñëw ba loolu indi pàkku làmbaayu tey bii ndax doonoon ne pàkk waaye tuddul pàkk fàkk la tudd doonoon waaw fàkk waaw nañ leen dem ndakaaru nu fàkk liggéey ñëw yóbbu sëñ bi sëñ bay cergaan <coughs> sëñ Aliou mooy lan papa fàkk mooy nga dégagé fàkk tubaab nag ñëw daal di ne parc daal di man de fàkk laa la wax fa fack fàkk nga fàkk e fàkkal fii nga fàkk ñëw samp say biteel samp say bant mm. samp say lépp mm. looloo indi pàkkum làmbaay yi d'accord léegi papa waaw xam nga sànq da laal ci goro yi nga xam ne ñoom ci kër gi la ñuy nekk Safia noonu la ko sëñ Touba daan doxal da daan defar ñuy dem mais yow bi ngay génn ci kër gi mer la fi génnee mer moo la fi génnee yow dangaa mer yow sa ndey nga bañ a dëkkal ak sa baay mer génn sa jabar dem mais doo ca dégg ndam d'accord yow doo ca am ndam papa da nga waxoon sànq gor yi gor yi nga xam ne dañuy nekk di sonal seeni seeni seeni jabaru doom loolu chaque règle à exception waaw léegi xaaral ma laaj la li mu la ci bëgg a laaj en tant que père de famille nga ni bu boobaa yow doo mën a lijjanti problème boobu ndax fa nga taxawee la léegi nan nga bëgg sa goro bu jigéen boobu comporté woo ak ki nga xam ne moom mooy yaayu jëkkëram te yow yaa ngi ci kër gi papa nga xam nga bu baax ne goro bu góor bi moom mooy tooñ ndax bëgg na fee jëlee ki nga xam ne mooy goro bu jigéen parce que bëggu ko goro bu jigéen bi mooy waaw moom laa wax goro bu jigéen bi du ma ne mooy tooñ mhm. dinaa ne goro bu jigéen bi mhm. bon du ma tudd sikk sax ndax man du ma ne jigéen ñi seeni goro daa sikk su ëllëgee ngeen yebee leen ko moom moo ne sikk man du ma tudd sikk man damay warmaal toujours kilifa uh-huh. ndax goro danga nga koy warmaal uh-huh. mais goro bu jigéen bi uh-huh. moom la suñu boroom bindee jikkoy boppam mu yor jikkoy boppam jikko joo xam ne méngoowul ak jikko joo xam ne nit ku lucide dina ni mel Mhm. ñu ne loolu lan la mhm. ñu ne dafa am ñu tàng rek mhm. yàllaa leen ko bindee dëgg la am ñoo xam ne difficile nañu lool pour satisfaire leen loo def doo mën a dab seen bànneex am ñoo xam ne loo leen wax nu toj ci kaañi sunu borom moo bindee noonu ay doomu aadama dina dama dem ba góor gi ci kër gi sax du ko ñemeñ mm. ñoo la gën a bëgg ab natt ñoo la dàq toilette doonuy diw doonuy takk or doonuy dem xew doonuy yor bokk ci natt yoo xam ne natt yu rëy a rëy la ñoo yilif seen kër ñoo yilif góor gi waxuma la kooku kooku dangay ngay muñ rek waaw waaw waaw léegi nooy def dangay ngay muñ ndax waaw ndaxte góor gi ci boppam xam na ne lii mu nekkee jaaduwul ci digganteem lii ñuy def gune gi jigéen gi lii jaaduwul. mais yow xam nga ni genre boobu. par exemple yow gis paa bu wax ci këram ñu ne ko téel sa làmmiñ. d'accord yow dama lay laaj su amee wax ma su amul wax ma wax ba pare jóg ay di ngay def doomu jàmb di nangam ak nangam ne la eh noppi yaay atte yow toogal foofu nga toog nga ne pat daal na danga may bàyyi ndax man dëgg dëgg ngay wax barke borom tubaab dëgg la gisuma ku ma mën a tax a jégg léegi kooku nga xam ne dafa tënk borom këram mhm. bëgg a tënk soxna su doom borom këram c'est-à-dire euh, ki nga xam ne mooy gorom bu jigéen waaw dina bëgg aye dina bëgg a togg dina bëgg am jël ay décision yoo xam ne ci moom la jëme la jóge jëmale ci borom këram parce que ku yor sa borom kër bëgg nga wax dëgg yàlla ay menu yoom li nga koy toggale euh, ak as mhm. néew mu jóge ci sa xel ak sa xol nga dem togg ko mais am na ci ñoo xam ne yow xam nga ni genre genre euh, belle yooyu ñoom ñooy jël dépense ñoom ñooy wax lu ñuy togg ñoom wax sax sa sa soxna naka lay solo ci kër gi danaa la ah kii bëggatuma mu sol yi na sol ay yére olof parce que kër gi léegi lii bëggatuma mu togg li suba na togg li tey bu mu dugg ci waañ bi suba bu mu dugg ci waañ bi donc kooku naka nga ko koy gérer en tant que belle-mère encore une fois falaa bëgg nga ñëw man waaw fi may ñëw yow mooy mhm. dépense bi moom ci kër gi moom mënoo koo dindi mhm. ndax moom laa fekk sans bàyyi daan ko def mhm. waaw mais paa bi jabaram lay jox dépense yow sa soxna nga war a jox dépense wala bi ba yéen ñi nekk extérieur mhm. ngeen dem mhm. su ngeen mënee dépasse bi ginnaaw seen ndey mi ngi ci kër gi seen baay mi ngi ci kër gi mhm. te da ngeen di joxe te am ngeen fi ñetti rakk ñeenti rakk juróomi rakk am fi ay rakk doomi bàyyi yu góor ak yu jigéen te yéen a ngi jàppale kër gi seen loxo jógewul ba léegi ma ngay jóge ca kaw di ñëw di fekk si su ñëwee su dee góor gi du yàq kat yëkkati jox kilifa yi kilifa yi suñu xëyee ku ci nekk sa jabar su aayee ñu yëkkati jox ko lanu koy jox moo gën ngay jox sa jabar lii kii jabaram amul lii te kii sa rakk la kii tukkiwul te amul loolu kii amul loolu kii mënul loolu sa jabar mën naa dem ba xam kan mooy joxe mu ëlbati ko xeexee leen ko d'accord loolu yow da nga joxe exemple ci paa bi lañ jël xaalis bi jox ko paa bi waaw kilifa gi man maa ngi ci waaw maire bi tamit su fekkente ne moom moo yor këram te yow xam nga dikkoom xam nga di koy maire maanaam kat la wala. non xam nga di koy maire bi xam nga ni dafa sonal ki nga xam ne moom mooy belle fille am waaw. Mhm. te kooku man mënumaa génn bàyyi sama yaay. Mm. dinaa woo waxtaan ak sama soxna ñaan yàlla tabax kër. Mm. waaw muñ yàggul. Mhm. boo tabaxee kër nooy def. su ma tabaxee kër ba pare. Mm. jël sama benn rak ñaari rak wala sama ñetti rak jël daal yóbbu ci sama kër. Mhm. saa yoo toggee di nga defar ba mu baax mais mère bi koy bàyyi ci kër gi. dama ngi fi ak sama papa. Ah, te kër gi soriwul d'accord nga beru bi côté boobu. ba ci côté boobu. nga bàyyi sa yaay foofu ci kër gi. bi nga bàyyi sa yaay ci ma rek maag bàyyi sama yaay ci kër gi ma ko defal. voilà loolu laa bëggoon wax di ko jox ab. loolu laa bëggoon wax rek di ko jox ab donc beru bi nga doon bañ auparavant moom nga eh, eh, nangu nii. waaw di ko jox dépassement. damay bañ nga beru ba pare woon ko ginnaaw. waaw dépense eh, a eh am na ñu war ñu eh eh wuyu ma wuyu ma eh eh mais da ngay déglu eh eh da ngay su déglu dootuma xam man de su waxee man su waxee man sama temps de parole laa nekk waaw baax na sama temps de parole laa nekk sama temps de parole laa nekk léegi may naa la parce que tu as envie de parler te xaw ma kan ngay ñëw te gis-gis léegi waxal waaw xam li mu li nga nga wax ni bu fekkee démb ngay indi. Ibrahima démb daanu woon demee ni góor ngi wax. ñun ci may ma tuuti rek. Sophie fecc sa kanam rek. waaw léegi man dama ni dama ci kër gu mag la ñu yaroo. jaajëf. démb daanu woon demee nii parce que mi ngi wax démb démb démb dañoo màggee ci kër gu mag màggee cosaan sama ay ñi nga xamante ni sama ay belle ñi ngi may dégg te ñoom ñëpp seen ay jabar ci biir kër gi lañ daan nekk waaye bu dépense daan am. soxna su jigéen si kenn du ko ci laal lépp ci loxo meer bi lay lekk. ah soxna su jigéen si lépp ci loxo mère. soxna mais soxna yi nekk ci kër gi ñëpp kenn du ci laal dépense. loolu laa wax même déglu ma dama ne. Ah, waxuma loolu Sophia dama ne ah. da nga ni bu ayee man li ma dégg. Mhm. bu ah, dañ koy jox. dañ koy jox. dañuy jox dañuy jox ki aye. dañuy jox ki aye. waaw jox ki aye. kan nañu jox bi la ñuy jox xaalis. mooy ndugg xanaa. déglu ma rek mais ma tuuti ma ñëw. mais ma papa papa mais ma ma ñëw. <laughs> kër ga <laughs> dama ni kër gi déglu bu baax a baax. dégg boo ma déggee rek Sofia nee na ko ndax maire bay dem marché boo ma déggee rek dégg bu dee ci biir kër gi la nekk. këru njaboot këru njaboot. waaw kër ga nekk fa dépense ba ca loxol maire ba lay teg. waaw wala góor gi rek ku ku ko ci denc. baax na ci loxol maire ba lay waaw benn la rek waaw. bitim réew nga nekk moo xam yaa ngi liggéey nekk ci biir kër gi. waaw d'accord ci loxo maire bi lay teg waaw d'accord waaw léegi après. bu tegoo ci loxo maire bi li ñuy togg yow yi nga xamante ne yaay ko jigéen ki amoon ci dañ la naan toggal xam nga tey soppi yaa ngi naan tout naan jigéen ñi dañuy am bëgg-bëgg am mu ni am nangam nangam wala bëgg di toggal seen dëkkër parce que bool boobu boolu ñëpp la day nekk bool boo xamante ne bu génnee ñu taaj ci digg kër gi ñëpp añ non dégguma xam-xam hmm. waaye ma tuuti rek ma ñëw dama xam-xam mu dégg mu tegu bool bi day tegu ci ëtt bi jigéen ñeek góor ñeeg ñëppay lekk su fekkee sa jëkkër dafa liggéey ñu tibbal la ci njël ji d'accord bu sa jëkkër ñëwee ñu jox la. d'accord mais xam nga xam nga ci kër. ci euh, dépense su amee par mhm. exemple day am kuy dem nduggi. Mhm. Euh, yaay ji par exemple bu fekkee nekkoo fi yaa ngi extérieur ñu mhm. jël dépense bi yëpp globalement. Ah. mensuellement. Ah. jox ko ki nga ah. xam ne mooy papa ji wala yaay ji xam nga chaque jour day am kuy aye ñëpp aye noo wuñu mais kii aye papa jël xaalis bi jox la ko. nga dem nduggi loolu nga bëgg expliquer. bi nga xamante ni mindaanu. déggaguma lu ma xam. mindaanu laa wax. jànq ji. nekk ñu woon ci kër gi xanaa nekkuñu woon ci kër gi. ñu ci bëri man de. au am euh, ki nga xam ne day liggéey ci kër gi. dafa am nga xamante ne dañ daan liggéeyal ci kër gi. Mhm. man de li ma daan gis sama yaay sama maam da daan ànd ak jànq ji bu àndee jànq ji mooy ndug gi li ko doy. indi bu fekkee togg dafa am bu ñëw ne la damal nga jël li nga xamante ne moom nga bëgg a togg nga ñëw teg ñu togg ko. Mhm. boo toggee ñu yekk. ñi fi nekk nekk li nga xamante ni nekkuñu fi ñu yekk ci boolu njël gi bu sa jëkkër wàccee nga daal di taajal ko mu añ mhm. wala nga taajal ko mu reer su fekkee sa jëkkër nekk extérieur nag bàyyi la ci gi bu fekkee sa jëkkër nekk extérieur waaye nag yaa ngi fekk ay dama ne bu fekkee par exemple da ngeen nekk ay wuju percargo mu nekk extérieur buy yónnee yónnee gi xaalis gi dama ne la ci loxo naka jekk ci kilifa gi lay nekk dama ne xam nga ki jëkkëram nekk doo ko tibbal waaw doo tibbal sa jëkkër. kooku kooku kañ daru ñii waaw parce que moom nekkul nekkul ci bool léegi kooku nu muy doxalee day dem togg ñëw indi. day dem toggi. waaw non day bokk ci ay ay loo bi mais moom ci biir njël bu ñu toggee. bu ñu yekkee yow kañ si sa jëkkër nekkul. waaw amoo amoo amoo yekk papa. waaw loolu. dafa ne bi ndax soxna si nga koy jox wala sa yaay. nga koy mais sa yaay sa yaay nga ah, kon d' accord nga ci ne démb ak barki démb looloo amul. looloo amul d' accord yow ban dëkk nga dëkk yow. yow dina kaw waaw man man jot jolof jot man de li ma dund. li ma dund li ma damay mais ma tuuti. da nga ne su doon démb li nga xam. waaw ban dëkk nga dëkk laa la laaj. man jolof jolof la. fan nga dëkk ci jolof. jolof jé màggeewu ma jolof. déedéet ngoy naan walla gille wala paas wala baxal wala yang-yang wala fan. paas laa dëkk mais dama ne la màggeewu ma màggeewu ma màggeewu ma ci jolof. fan mooy paas. góor gi bu fekkee da nga ma bëgg duggel dugal ci fi nga. dugalu ma la ndax paas mooy baxal. déedéet ma baxal bas ma fa. waaw man daanaka léegi nag su fekkee da nga bëgg par exemple dugg ci territoire. paas mooy baxal day génn ci kii bi waaw. yow yaa ngi naan léegi dama ne waaw démb démb waaw amul problème paas mooy baxal d'accord d'accord paas mooy baxal léegi dañuy jël téléspectateurs yi ma dellu si si si Vito ñëw ci Prospère 88 non Vito pare naa ci yow sama xamul ci kaw ga dara 88 628 asalaamaaleykum ñu ay tubaab nanu alo bonsoir ñoo ngi leen di jàppale ñu ngi nuyu suñu papa ma Mar DTN football bu Sénégal mi ngi nekk di seetaan émission bi di gis-gis papa mu ngi lay nuyu euh, waaw Mayacine Mayacine international waaw mi ngi lay nuyu bu baax Mayacine Mar asalaamaaleykum koy nuyu bu baax a baax a baax Mayacine maa ngi lay nuyu góor gi si Dieng depuis NBA maa ngi lay nuyu bu baax a baax allo bonsoir góor gi 88 628 89 90. 88 628 28 28 allo bonsoir. Ah, ñoom ñëpp ñoom petit. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. salaamaaleykum. Famara Diédhiou. allo. salaamaaleykum. soxna si noo def. si. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax yaa booy. maa ngi leen di nuyu. ma ne. ñu ngi lay fay bu baax. man de man xam nga man ku nekk sa gis la. dëgg la. xam nga man luy sama gis-gis comme nee nañ xale yi nee nañ démb am fi mu nekk ni temps moderne moo am. Mhm. nee nañ démb passé na fi ne temps moderne moo am. Mhm. léegi man li ciy sama gis-gis xam nga nu nu nu ñu waroon a def comme changé nañ ko. waaw ndax démb dafa am dañ li Père Mbaye Ngoné wax moo amoon démb. dëgg la parce que dañ daan yëpp sa yëpp man kër gi ma yaroo. Mhm. ah. waaw. kër gi ma yaroo man yaru naa fi samay frère am nañ ay kër mais ña nga toog ca kër ga. waaw waaw ci kër gi lañu toog. ak seeni jabar ba papa bi génn àdduna ñu soog a beru jeeg seeni jabar. barka borom Tuuba billaahi. dégg nga. Mhm. léegi nag comme xale yi léegi loolu nangootuñ ko nangootuñ ñoo muñ. déedéet waxtaan wax dëgg ca la mais kenn nangootu. nangootuñ ko. mais mère yéen tamit sonal ngeen xale yi. nangootul ko waxal. ma noppi bàyyi leen jàmbur non bàyyi leen ko. xam nga lu ciy solution bi. ah Sophia. waaw booy xam nga lan la. mooy lan. man dama leen a digal léegi xale yi ku ci am ku nekk sa kër ban takk la. waaw. léegi na xale yu góor yi dem sëyi ca seen kër nday ya. waaw. dem xale yu góor yi. dem fekki seen jabar ca seen kër ndey. Ah, xale yu góor yi dem sëyi. waaw. waaw dañ bëgg a changer. waaw soppi leen def leen loolu. dem leen waaw solution la ah, solution la kay ginnaaw nangu leen a séy si. waaw solution la kay solution la nag tànk bi dinañ ko tàllal wala nu banque ko. dëgg la léegi xale yu góor yi. <laughs> bu ñu leen jëlee leen dem leen sëyi seen. leen sëyi. waaw